daleen a jàmm mbokk internet yi seen njariñ TV daal dee wax nag ci campagne présidentielle bi nga xam ne fas yéene nañ ko amal ñeenti fan ci weeru février atum 2024 mooy jiitu nag élection présidentielle yi maanaam jour vote bi yemoo ko cinq février ci noonee nag kii di Amadou Ba nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar daal nay def nag li nga xam ne moom mooy directoire de campagne am boobu lépp candidat bu coalition noo Bokk Yaakaar présenté na nag ci njeextalu ay bés bile moom Amadou Ba li nga xam ne nag moom mooy directoire de campagne la ca yéem kay mooy ñu ca maki Sall benn yoon bu tardé dañ doon wax ne Macky moom moo digoon Amadou Ba ne moom mooy nekk directeur de campagne lan moo waral nag Amadou Ba boole bu ko ci boobu lépp directoire de campagne Amadou Ba moom déjà sax mettre na en place stratégie de campagne jaarale ko nag ci élection présidentielle bi PM bi moom nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar daal di nay teg équipe bi nga xam ne ñoo ko fas yéene ngir mu gagné. ci li nga xam mom moy élection présidentielle té du ci am benn jafé jafé kuy directeur de campagne bi lolé nak kenn xamuko mom Amadou Ba pôle communication nak mang ko jox Hamidou Kassé ginnaaw nak ba ñu sukkandikoo ci kàddu yi ñi am pôle communication bobu nak ñu daal koy xaaj ay patch yu bari Ousmane Thiogan ma ngay jité unité digitale Waly Fall mu nga yor veille Alertement, mon moom ñu daal koy euh, ak riposte Abdoulaye Faye mon lañu yor mom mo yoré li di relation ak média Bamba Ndiaye mooy euh, manager li nga xamné ne moy unité argument et élément de langage Cheikh Kanté mon mo nek président mouvement de soutien Farba Ngom moom bokk na ci équipe bi ma ngay gérer Aziz Mbaye mom moo yor mobilisation ak logistique maître El Hadji Amadou Sall moo yore juridique Ndeye Saly Diop Dieng ak Baxaw Jong ñoom ñoo gérer jigéen ñi wante nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse bi ñu ngi ko dégg Yaya Diallo bu PS ci nag Moussa Sow bu Cogère ñu affecté ko ci pôle jeunesse pôle programme ñu confié ko Doudou ak Pape Sagna Mbaye Serigne Mbaye Thiam moo du Diagne Fada ak kii di Omar Ba ñi nag wàllug relation ak seen élu yile pôle organisation ñu dénk ko maître Omar Youm ak Thérèse Diouf Faye Racine si moom muy def link diggante société civile ak Benno Bokk Yaakaar Aliou Sow ñu affecté ko ca culture Seydou Diouf moo yor sport Ali Haïdar jëm ci wàllug environnement Benoît Sambou moo yor yor pôle électoral ñu wax nag ci li nga xam ne moom mooy pôle stratégie ki ko jiite di Moustapha Niass bokk ci nag ak Amadou Mame Diop Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall mi nga xam ne nag dafa promettre woon ne mooy directeur de campagne bu Amadou Ba moom nag si noone kenn gisu ko ci li nga xam ne moom mooy ci directoire de campagne boobule. te it sax moom moo ko waroon a jiite wante Moustapha Niasse dañ ko gis Amadou Ba donc nag moom day diriger personnellement campagne am candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar nag moom dafa rek décider. ne day def na Macky Sall la defoon ci atum 2012 te it nag mu ngay maintenir même schéma bi ngir nag mu bañ a nommé benn directeur de campagne ñu naan nag Amadou Ba mi wóolu na boppam ak lan moo dox diggam ak Macky